Jol fama ja khailul lepte di khaitu si lembel senegale ya sa baaya nga nooru diine du may seen baayu diine أنت جرى إلينا نغني لنغنور ديني nga neel nga nooru diine lool fa may jaxay lu la tee jaxaatul si lambe Sénégalé yaw ni leeri diine ah bilaay waat naa ci barkeb baayu Mansour si

liggéeyam rafet na fii liggéeyam ci réew mi kuy siñe baax siñel nga ko te réew maa ngi kaay dem foo taxaw jàkka yaa ngi riir ku fab tey sa làmmeñ booy waxu mbaax waxal ko ko demal ndar demal jël jóob ba kawlax demal podoor imaam boo fu woo la bay kalay wax liggéey na ko moo tax sëriñ Aline Gueye ni ko dangaa ñëw Sénégal dëkk boo dem kafa daan ub làmb ya nga formé ka yow Maodo ba muy firi kaamil yey jiite jumaa yey samp xeer ya ataa wa biqaa u suudi dulmun wa dulmatun fa qaama bi sayfi lhammi bilxasmi mujradi fa jaahada fiiha بالسياسة والندى وعلم وحلم فاهتدى كل ما تدي mu ci jàkka yi wër réew mi fasaarat sawaaya fi quraha jamiiha mila an bi fawjin raakiina wa sujjadi bi nga defee loolu yemoo ca julli wu ñu suba julli tisbaar julli taksaan julli timis julli gee dem seen yoon ñaari waxtu yooyu balaa jant fenk bu ñu sël sëlmalee suba ñu nga lal malaan wasifa mu bu ñu sëlmalee timis lalaat ko li aswaatim fi kulli yawmin wa laylatin dawiyun lada kulli zawaaya wa masjidi njool faama jaxaayinun la teedi xaacoosi la mbeel senegaale yaa wone leeri diine bu saa taxawee ñu xam ko yow raa yow diine ba Kawlax demal Podor imaam boo fu woo labbay ka lay wax liggéey na ko te as alquran ñaareel ba mooy lan sunna rasul la teg ay dëggoom jëf lii mu jëf as jameefu ko te as alquran ñaareel ba mooy lan sunna rasul la teg ay dëggoom jëf lii mu jëf aas jameefu ko la géeyal sunnaa tax Maodo xëy woo rasulullah te naan ko dinaa dekkal sa cër fii saxal na ko te cër bii ku koy dekkal dangay muñ da fokk nga am ci coono yi fokkit nooni sunna na ko li aas daj ci dekkal gii ci ay nattu ak xatal ngireet sunna si muy feeñalaat aas woyoon na ko alaa ya rasulallahi ya afdal alwara faanaanu fii diiqin lii musul neex waxoon na ko ba aas xam ni moom day wéet sunna kese yombatul mu ñaan wéet te def wéttal sunnaam mawdo woy na ko ilaahiya fajal اهلنا آل غربة كي وخلي كوري تانكم تومي تجف الكنجول فاما يا خايل لك يا خايل توسي لم بيل سنغال يا ونلري دينا آه. barke baay Mansour si bu saa taxawee ñu xam ku yor raayaw diine ci barkeb maami mën sóoru si bu saa taxawee xam ku yor laa yow ci barkeb maami suura mbay si bu saa taxawee ñu xam ku yor laa yow diine ci barkeb maami Seex Tijaan Si bu saa taxawee ñu xam ku yor laa yow tax li aas daj ci lekkal gi ci ay nattu ak xatal ngireeg sunna si ñim feeñalaat aas woyoon na ko alaa yaa rasuulallahi yaa abdalal wara faa naxnu fii day qiin musul neex waxoon na ko ba aas xam ni moom day wéet sunnes kese yombatul mu ñaan wéet te def wéttal su naam Maodo woy na ko ilaahiya fajax ahlana ala xurbatin ki wax lii kuroy tànkam na tom yii tegef la ko te jaaraama saydil aaji maalik si yow mi te su nas xayru xalqillaayi dee fii dundal nga ko jumaa yaa ngi jàkkaam yaa ngi foo si kër sëriir si jàmbaari tool sañ naa taxaw xuuyu jomb ko te tool baa ngi waaram yaa ngi mbéy mi rafet na kaar na buur yàlla dollil koy ngërëm ndax yeyoo na ko moo tax ngërëm loolee sëriñ Alioune Guèye Maodo dem talaata mu ni góor gi tëdd yàlla na ko yàlla gërëm moo tax yéen bind yi ku ciy bind tey am nga loo bind Seydi Laaji Maalik Si jumaa yaa ngi nii mooma jàkka yaa nii mooma téere yaa nii mooma ñu sang ko ñu ni diit ñu teg ko ci jaat ñu ni déet ñu dugal ci mpax suul kon yéen bindkat yi bind am ngeen lu ngeen bind wa dax anka at laalan bi burqati samadi li xawlata ma taw saafiha bika ismadi wa maa qawlu layla wa rabaabi wa fartana wa maa qawlu hindin bal hësalma wa mahdadi wa dax dikra ayaami siba wa layaaliha ودع عنك تستار المخاني لخردي ñu ni Serigne Aline mu ne arab boo ko bégalee boo dee góor day way sab jigéen moo tax Serigne Aline Gueye nee na ñu daan way lay laa ki rabaab am nañu lu ñu woy tey ñu ni lan mu ni Seydi Laaji Malick mus la lekku yàpp mus la naanum soow ba ñu laaj ko mu ne damaa xamul ndax yàpp wii nag wi ko lekkoon mus na ruur toolu jaamuram di ak jaamur joojee topp soow meeg yàpp wi kookee bu tëddee ci bàmmeel booy bind jooy ko tey booy bind bindal ci moom walaakin tafakkar kayfa dij'atu sayyidi la daaraw di wal xatwu asqala an dadi walaakin tafakkar kayfa dij'atu jihbisin mooy xabibin xalilil kulli barrin wa mursidi walakin tafakkar kayfa tijatu muxtafar bihi sunnatul ki nga xam ni bu jéggee ñaari jéegoom bi alquran la benn bi mooy sunna su نبي محمد نال لقد نام سوء إرد كريم مهذب أبين عن الأدناس التار محتدي سرين ألين جيني غرغ سلنجي مسلا لكل كلول مسلا نانم صو مسلا لك يب دم قالس لا يقدر الحمل ذرة من الدين عون للأحباء وحسد يول فاما jaxaayilu la tee di xay coosi lambeel Sénégalé yaay woon ci barkeb baayu Mansuur Si bu saa taxawee ñu xam ku yor raayaw diine yeyoo na ko te jaaraama seyli aaji maalik si yow mi te su nas xayru xalqillaayi dee fii dundal nga ko jumaa yaa ngi jàkkaam yaa ngi foo dem si kër sëriir si jàmbaari tool sañ naa taxaw xuuyu jëmb ko te tool baa ngi waaram yaa ngi mbey mi rafet na kaar na bur yàlla dollil koy ngërëm ndax yeyoo ko ba muy dem na koy jébbal sëriñ mbay si ab yenam ba réew mi fu aas def benn bàyyi mbay fukkal na ko di daaral sunna su maam aas di jëf ay jëfam ni moom ba téeméer bu daan seet aas junneem ñëw fi seet si ko mu toog wuutu aas ak fayda mbay mbër mu ñëw taxaw di jéem sóoru aas mbay jàggiwul kenn mu ko bu dul woon bii liggéey bii fi aas defoon du am benn jeexital nde kon gaañi ruur te ko njool faama jaxaaylu la teedi xaytuusi lëmbeel sénégalais yaa woon léeri diine xalaa yowmuhoo yowmu sulaasa bi suurihi waxat baaxa xarru samsi naxwa tabarudi ne tiwaawoon ñu fermi bitig yi tubaab yaa nga àndandoog wolof yaag tukulóor yaag naar yay jooy nee ñu tëj bitig yépp waxul li xatil abwaabu doona tijaaratin waqad urjifal aqwaam min kaydi saydi néema riir wut si kër gi fekk sëriñ Babacar jox ndigal sangkat yi nee ñu romb maag ñetti gutti ndox bee ñu sang ñu jamb cam déem bee ñu jamb ca goowe bee ñu bàyyi ko noonu nee xuloog ñoom naan kii gën a fees géej bu ko guttudee sang day jox yoon cëram wa min ajabin taxsiilool kulla qullatun wa fii sadrihi mil baxri asamu musbidi nee ñu sang Maodo xalifa jiitu ay rakkam topp ca muqaddam yay jooy ñuuti jàkka ja nee ba ko julli alaaji Mor Xujjasi moo ko julli nee ñu yenu Maodo nee Sëriñ Aliou Guèye ma topp cay jooy naan bu dammul jaat gi ak wilaayam buree xam-xam bi day dox jaat cërëm wa min ajabin xamlul axilla bi naqsi wa maxmooloo sabran yusaanun bi jël madi nee ñu jël mawru xalifa ni bismillaay ñu joo ci bàmmeel bi suul nee xalifa wuti dóob ga nee ma dem dem mënumaa dem samay tànk la xasoo nee ma jooy xaacu bàmmeelu mawdo ni ko fayaa ajaban min axsani durri ustao darixa abil mansuuri miqiyaasu mukk mi di kii tëgg mooy suleymaanu amrin kii tëgg mooy muusa wiin bi ne kii tëgg mooy xaliiluy diinin kii tëgg mooy sunniil muhammadi kii tëgg moo ma jàngal ba ma doon ay supérieur ci cadre yi may lim wa man lii bi ixraajil xaqaa'iq naasixan sëriñ alin géyni wa man lii bi tadraasil kitaabi wa musnadi wa man lii بورش بل جنيدي والأسعري ومن لي بآداب ودرب المؤدد ومن لي ببسل الفقه والنحو منطق بيان معاني بديع بأسئلي ومن لي بنين في النجوم مما جبل علم النجوم من ما رد جكا من ما دفر أرمنات أو دوني مريوم جامر لا وايل lu du rëdd xibla rek bul ko ci jéem بنجم في النجوم وموسل أصول أرادا سيرة بدر مقودي بنقنك ومن لي بأستاذ يربي مريده بلا خلوة بل همة مثل آمد nee ba ma wàññi ko ma fekk sëriñ Babacar mat Maodo nee ñu jaayante ak moom ni ko xayra fii wala xarwa fii irsil walidi bi walidin kama qaala asan najlu maddaaw man di fa najlu mu Ousmane mii di Babacar Si mooy muzakkirul atqimu Ousmane mais